Chérif boo fàttalikoo démb bi nga xamante ne yaa ngi tàggoo mbokki téléspectateurs yi yaa ngi yemoon ci wàllu maandu mhm. xam nga ñu ngi woon ci jikko yi ndaxte da nga wax ni ñu ngi ci jamono joo xamante ni mhm. ñu ngi dëgmal ay élection mhm. ñu ngi ci jamono ni ñu ngi dëgmal ay am campagne mhm. démb nag waxoon nga mbokki téléspectateurs yi mhm. nga xamal leen ni dara jaru fi digeloo manul déedéet waaye dara jaru fi bëgg a falu ba digeloo manul waaye dara jaru fi bañ folleeku ba tax nga teg ci kaw deru nit loo xamante ne jaaduwul nga indi maandu indi loon ñu Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala anhu nga xamante ni fa tabarakallahu nee naa la moom mooy quarantième personne ci l'islam waaye dafa rampe nag rampe ba boone ne Seydina Mouhamad abu Aboubacar ak ne Omar. Chérif mhm. bismillah. jërëjëf xaali Ousmane kon Maandu. Maandu mhm. nag Sénégal dëgg-dëgg est-ce que xam nañu luy Maandu. ba ci yaa ngi wax ni tey am nañ juróom-ñetti fan. mën naa wax ni ñàkk nañ ci juróom fan. léeg-léeg nit si euh, fête anniversaire am. Mhm. ñu ne ko lan ngay fête mu ne am naa 40 ans wala am naa 42 ans. ma ne ko déedéet bu fekkente ne yàlla dafa dogal ni téeméeri at ngay dund nel ñak na 40 ans ci sama dund bu boba nga ne kon nak yi ma déssé dina ci gor góorgóorlu waye mandu tamit ci luñ la lajul ci lu sa yon nekul ndax domaine privé tafsir dafa am domaine privé dafa am ba boy jàng sax alquran da ngay deg ñu nan alif lam mim ak alif lam mim sad kaaf ha ya ayn saad boo xoolee yooyu yëpp domaine privé la yàlla xam lu mu ca nam kon dafa am li nga moom li ma moom ak lu ñu bokk nga bañ a lu luñ bëti yëfu jàmbur ndax vie privée dafa am vie publique dafa am ni ku nekk nag yem ci sa palaas bañ a dugg ci domaine u jàmbur su nga yonent bi sallallahu dafa mandu woon ba gis nga li mu la wax démb nee naa la njiit dafa war a mandu su ma nee njiit nag maa ngi tàmbali ci chef de leta maa ngi jaar ci ministre yi maa ngi jaar ci maire yi maa ngi jaar ci chef de quartier yi maa ngi jaar ci imaamu jumaa yi maa ngi jaar ci borom kër yi nit ku baax day mandu roy yonent bi sallallahu alayhi wa atte nga yemale ci ñëpp kunu qawwaamina bil qisti شهداء لله ولو على أنفسهم أو أو أو الوالدين والأقربين kon nga gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ca xare Badar Abbas mu ngi xare ci yéeféer yi waaye mujj na tuub dugg ci lislaam moo tax mujj gu rafet moom laay wax toujours yàlla nañ ko yàlla may départ baax na waaye arrivé rek nag la yàlla di xool te ñàkk maandu dina indi nit toll ci lalu sukuraat yàlla nangu liimaanam nangu lislaamam mu dem ak loxo yi neen lu koy waral gor gu la deful dara séqoog moom dara nga naan kii maa ko xam te nit ki sa bopp sax xamoo ko bu mu jeex asabalaax ngay jéem a lijjanti jéem a xam keneen jàpp deru gor bu la deful dara nga jàpp ci deram di màtt di xonc nga xamante ni fépp foo xamante ni demoon na fa jar fa kilo yow boo fa jaaree mu jar fa liibar wala genn walla liibar ndax nga yàqati ko yonent bi sallallahu alayhi wa keroog boobu nga xamante ni jàpp nañ ñoom Abbas ba nga xamante ni ñii nee nañ nañ leen rey yonent bi ne non non leen laaj laata ñu leen doon laaj dañ leen yeewoon sedd bi jàpp leen Abbas di onk mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga deret dafa foor ndax Abbas ak papa yonent bee bokk ndey ak baay ndeysaan xol bee ngi métti Abbas di onk yonent bi nelawul waaye Aboubacar mu ngi koy xool ak Umar gis ni kii nelawul ndax baayam bii ñu yeew fee moo tax muy onk ñu dem jàll ci ginnaaw nee nañ ko yeewi gaa ñi tekki ko yonent bi toog bu mu yàgg ne lima za aninal Abbas lu tax déggatu ba onk Abbas yi ñu ne ko ah dañu gis ni de sa xol dafa mel ni lu tooy moo tax ñu tekki ko mu ne ko mais quoi ngeen tekki ko bàyyi ñeneen comme tekki ngeen ko tekki leen ñëpp ñu tekki ñëpp ñu ne nag ku jàngal fukki xale ba ñu mun a bind mën a jàng liibar nga ku goreel jàmm liibar nga ku dugg ci lislaam liibar nga ñu tegal leen condition yi nga gis ni kon yonent bi daan na xiirtal njabootam ci lan ci xam-xam kon génération dañu war di jàng كنا تفسير عبد الرحمن دفنا لي ماند بوبو nga war ñu ci duggal ci Umar ibnul khattab ñu tëj parenthèse. ma sha allah Aydara fa tabarak Allah yal na la yàlla fay. amin ya rabbal lamay dugg ci mandu gis nga Abbas moomu ngay wax. gis nga li nga nan mujj gu rafet mo am solo samam Seydi hajj Malik radiyallahu taala anhu mu nga nan wa haydarun gaslahu walin yuqallibuhu al-Abbas abbas moomu la kon bokk na ci ko sa nga xam dinañ ci ag wa insha allah waye yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم dégg suñu borom subhanahu wa taala saa bu woowee bu ne ya yul lazina amanu ku gëm yàlla rek bu yebo nga déglu te xamne yow lay waxal yéen ñi gëm yàlla ñu ne labbayka ya rabbi mu ni na ngeen sax ci mangu na ngeen seede te yàlla tax même li ngay seede bu fekenteni ni arrangé wu la nang ko wax te yàlla tax qulil xaqa walaw ala nafsika ya togn ñëw nañu di la laaj waxal ni neexul ba neexul waye ma togn de len rek nak la mëna def moy jéggalu waye togn ba paré dem jëri avocat di lijeenti di layak di yégg ak di wacc bañu jël deug ga jox ko keneen fii de am nga fi dëgg goo xamante ni moo moo ko mhm. waaye bàyyil xel ni bu ëllëgee bu awwaluuna ak na dajee suñu borom subhaanahu wa taala dajale jaam yépp war leen a atte mhm. su boobaa di nga xam ni alaysa allahu bi ahkamil haakimiin yàlla moo dàqi atte ñëpp mhm. fii alal moom moo tax nga am dëgg te ñàkkoon dëgg da nga jënd dëgg ci alal waaye yowmal qiyaam di nga fa dajeeg attekat boo xamante ni alal yitteelu ko kenn mënu koo jënd te su boobaa di nga ko ñàkk te nag vraiment nag ñàkk am gàccey fii moo gën bu fële te nag loolu sax nag dadul gàcce Chérif mu leer la ni nekkoo ci dëgg hmm. nga daje nga daal ni man damaa tooñ ni yëg nii la demee hmm. kër gi de wax dëgg yàlla moomu ma ko hmm. damaa juumoon rek doon te jéem a taq ci këru jàmbur waaye moomu ma ko wax dëgg yàlla dañ maa abaloon nangam ak nangam bu ko defee nga am jàmm boo liggéey yawmal qiyaam nga am jàmm moo tax yàlla subhaanahu wa taala ni walaw ala anfusikum même dëgg gi bu fekkee ci sa kaw la daal teg ko ci sa kaw awil waalidayni sa ñaari wayjur yi nga xamante ni muy sa ndey ak sa baay bu fekkente ni ñoom ak keneen te yow nga xam ni amuñu dëgg dóor leen ko mhm. xamalal ni amuñu dëgg mhm. wal aqrabiina sa mbokkum jege ñaale bu mu mënti do mhm. saabu bu dëgg suñu borom subhaanahu wa taala nee na xañ waxal ni amul dëgg nii ak nii la demee yàlla ne in yakun ganiya ndax lii rek mooy tax kat nit di ñàkk dëgg ba pare di wax lu dul dëgg ñu ni lan muni nga bëgg lo am nga ni li kat buma ko waxé ci sérif maami xamna ni sérif dina ma defal nangam wala li kat buma ko atté ci sérif maami xamna ni sérif maami dina ma fal dinañ ma defal promotion ci sama walu liggéey wala bok nga am place bo xamni ni bëggoo koo nga ni li kat buma ko waxé ci sérif maami wala buma ko waxé dina ñak sama place waye sérif lam ma daan defal dootuma ko defal yàlla ni bu fekkente ni bëgg lo amul wala bok ragala ñak lo am mo waral ngay baña mandu fallahu awla bihima yàlla mo gëna yayo pour defal la teranga yàlla mo gëna yayo mom yàlla pour xagn la teranga ndax yàlla mo man lépp yàlla ni nag falaa tattabiul hawa an ta'dilu way way fexe leen ba bu len top sen banexu bakkan sen banexu bakkan ngal la way bu mu len téré mandu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ñak deug bu taxé sa kàddu leer ngay wax waxinu ni may waxe ni yek ni ngir jaxase deug gi ngir bëgg a bëlëfe suñu borom subhanahu wa taala néna man yàlla khabir ku dañ kum pala bima ta'maluna ci la ngeen def ba histoire bay dem ba muy am fa la ma fekk ndax ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa maahum aynama kanu suñu borom subhanahu wa taala shérif néna ba bir may am fa la ma fekk kon nak jarul ngay leg legg seggal ngir bëgg a ngir bëgg a jaxase yàlla nee na man mi nga xam ne maay boroom dëgg fekke naa lépp mhm. suñu boroom subhaanahu wa taala nag bi aaya boobu daanoo mhm. mu ne wóor na ma ni nag fii de moom xam naa ni mënu leen fee maandu mhm. ñu ne ko yàlla fan mu ne diggante soxna yi kooku nag ñi am ñaari soxna fa tabaarakallaahu baa ñi am ñetti soxna ñooñu ñoo ko moom baa ñi am ñeenti soxna yàlla nee na moom wóor na ma ni mënu leen a maanu boom ci diggante soxna yi même bu ngeen bëggee maanu du ngeen ko mën parce que xol bi nag am fu mu gën a féete moo tax sa maam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daan wax suñu borom naan ko yaa rabbi xol bi da yaa ko moom yaa ma ko jox yaa ciy dugal lu la neex yow nag yaa ci féeteeg Aïcha ba mu ëppale ci seeneen soxna yi waaye li nga xam ne nag maaka moom muy kay gi ak li nga xamante ni mooy dépense bi nga xam ne dama ko war a séddale loolu tege ci sama loxo bu soobee yàlla ni nga ko bëggee rek noonu laa koy defee xol bi nag fa mu féete moom muy Aïcha loolu nag yow yàlla loolu yow la kon Chérif defe naa ni maandu sax fa tabarakallahu du mën du xaj ci émission tey bi ndax day thème boo xam ni gis nga Sénégal wala adduna bi ñu ngi wax démocratie. waaye démocratie dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sërif mooy maandute xam nga maandute mooy lan kenn wa aati kulla zi xaqin xaqa kenn ku am dëgg ku nekk nga jox ko àqam ku ne la mu moom rek jox ko ko mm-hmm. xoola sa maam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa maandu woon dinaa la jox benn jigéen bu ñuy wax Fatima nee nañu moom la tudd mhm. mu ngi bokkoon ci banu maxzuum mhm. banu maxzuum booba da naan mu ngi doonoon famille boo xam ni par exemple nga ni dafa bokkoon ci famille kër maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu nee naa dinaa ci ñemee joxe misaal mhm. benn jigéen bu fa bokk daal di def naka sudul noonu mooy dafa sàcc ndax ndaw si banu maxzuum la bokk te banu maxzuum banu hashim dañu bokkoon banu umayyata dañu amoon doole yàlla dogal ndaw soosu daal di sàcc ñu war a dagg loxoom ñu yónni Usaama tabnu Zeyd moom nga xam ne Zeyd ibnu Xaarisa ko jur te Zeyd ibnu Xaarisa Xadija lañ ko mayoon mu may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ñaanal ñu yonent bi nee ko Fatima mii kilifa la dafa bokk ci famille bu mag bu ñu daggee loxo bi famille bi yépp ñooy rus mhm. kon nag bu na ko teg beneen pétition waaye bu mu dagg loxoom mhm. kere bi Usaama di wax ak yonent ci Àlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yonent bi bokkoon na ci ñi mu gën a bëgg Usaama mhm. moomu yonent bi nee nañu usama bi mu tàmbalee wax rek di ñaanal intervention Fatima moomu yonent bi kanam gi dafa soppeeku xonk cur mu mer ni ko Usaama yaay ñëw di ma ñaan ci loo xamante ne suñu borom moo ko tëral pour ma teggi ko Usaama xanaa xamoo ni ña leen jiitu xeet ya jiitu lii moo leen alak mhm. mooy bu baadoo la defee naka sudul noonu ñu dal ci kawam waaye koo xamante ni ab kilifa la bu defee naka sudul noonu ñu jéggal ko mhm. usaama maa ngi lay xamal ni law anna fatimatu bintu muhammad la saraqat la qataatu yadaha bu fatima mi nga xam ni maa ko jur waxuma bii de waaye fatima mi nga xam ni maay baayam man rasulillahi ba bëgg ko ndax sama daggitu sama daggitu res la mhm. bu fekkoon moo sàcc sax dinaa dagg loxoom ndax yàlla moo ni wasaariqu wasaariqatu faqtau aydiyahuma جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم شريف ما نجي جيغلو لا تدفع من لين امون تي وقتو جيخنا كادو غاني نون بسم الله نتاغو ان شاء الله كون لا يونت بي وخون رك صلى الله عليه وسلم سواي بو توغي نانكو ديمبالي بو نكو توغي نانكو ديمبالي ني نكو داكور نانيو ني توغ كو غا ديمبالي كو واي بو توغي نكا لا نكوي ديمبالي مو نكو غا خامل كو ني يا توغ ني جيما خور فو جار بور جيغلو كون لولوي ماندو